léegi man la élage Hadj Nying euh, de la commune de Touba Fall. yow loo nekk ci fédération bi. donc je suis le trésorier général de la fédération F4 la fédération des quatre communes. lan moo waral waaw lan moo waral ndaje mi. waaw ndaje mi li ko waral mooy d'abord remercier ñi nga xamante ni dañ ñu watal ba ñu gagné. Mhm. quatre communes yi dañ ko gagné bu baax largement. donc il fallait que ñu woo leen def évaluation. jaajëfal leen waaw loolu bokk na ci li sabab ndaje mi ak aussi nag euh, dafa jot aussi ñu jox ñu plus de considération je directement aux autorités national maa ngi wax directement ak autorités yi commencé ko ci président Macky Sall suñu président ak les responsables yi nga xamante ne nii ñooy suñu ay responsables ci département bi mm-hmm. ñu ñu ñu ñu ñëwoon tey di leen di àggee président de la république dafa jot tey ñu jox ñu gëdd. lan ci département de Mbacké lan ngeen manqué. waaw li ñu manqué mooy boo xool ci département Mbacké jigéen ñaa ngi fi. ci monde rural bi quatre communes yooyu. quatre communes yi jigéen ñaa ngi fi am nañ seen formation seen lépp mën nañu liggéey taxaw nañu takku nañu mën nañu liggéey mais taxul taxul ñu am benn financement boo xamante ne nii jóge na ci état dugg ci quatre communes yi. loolu aussi amuñu ko mhm. la ca tegu mooy mm, ay ay ay poste de responsabilité mhm. responsable yi nga xamante dañ fee nekkoon depuis dekkal ngor ba léegi joxuñu leen benn poste loolu dafa mel ni ba léegi jusqu'à présent mu ne weesu na sax loolu dañ ne indépendance ba léegi waaw depuis indépendance ba léegi depuis indépendance ba léegi mësuñu am benn nomination boo xamante ne ni eh, ñeenti communes yi am nañu ko mhm. kon nag loolu aussi dafa bokk ci li nga xamante ne nii dañu fe dajale tey pour ñu leeral loolu pour ñu magnifier loolu xamal loolu chef de l'État pour mu xam ne aussi euh, quatre communes yi ci département Mbacké la ñu bokk mhm. kon nag euh, bu weesoo loolu affaire télé bi affaire santé ak voilà bu weesoo loolu aussi am na ay ndax ci campagne la ñu jógee mhm. doon def collecte des données fu ñu dem dañuy déglu nit ñi ñu wax ñu leen mooy seen i ay jafejafe mhm. bokk na ci yoon yi nga yoon bi nga xamante ne nii docteur docteur Cheikh Gadiaga coordonnateur F4 wax na ko sànq yoon bi nga xamante ne nii moo moo jóge Daaru Xafoor jaar Ngay jaar Touba ñëw Missira yoon boobu buñ ko tali woon dina baax lool lan moo tax pour pour euh, transport bi yomb ndax euh, am na oto yu nga xamante ni dañuy bëgg a dem euh, Kaolack dañuy ñëw ba Missira ñu coupé jaar Touba jaar ngay dem Daaru Xafoor jëlaat route nationale. ci wàllu koom bi ci wàllu koom-koom bi aussi dafa dafa ciy baax parce que euh, bu ñu ko defaloon dañuy am ay carrefour parce que dëkk yooyu yëpp fu ñu fa jaar dinañ taxaw mën fa def seen bët seen commerce bu ndaw echange continué waat et puis suñ ñun suñu dem ak suñu dëkk dina gën a yomb daal. est-ce que dëkk yi am nañ courant bu doy. waaw dëkk yi am na am courant mais pas ndax commune boo dem lu mat juróom-benni dëkk lañ fa électrifié te boo dem am na plus de 36 villages. fanweeri dëkk ak ñaar wala fan ak juróom-benn am na ko commune boo dem juróom-benn dëkk lañ ko jox courant. Euh, ci wàllu ndox mi. ci wàllu ndox mi aussi mooy li ma wax rek dañu jóge ci village yi koo ci gis ñu ngi ñuy mébét ndox parce que accès à dafa jaadu fi mu toll nii. Mhm. da ngay gis ñuy takk ay charrette def 2 kilomètres waratul am wala ñu def 3 kilomètres wuti ndox waratul am li ko waral nag mooy benn forage ci commune je prends l'exemple de Touba Fall benn forage moo fa am depuis 1965 lañ fa def benn forage muy sillonné euh, diamètre bu 20 kilomètres diamètre un diamètre de 20 kilomètres lay sillonné napp bi presque dafa jeex dañu bëgg un deuxième forage foofu. mais président mais président digg na lu am solo ci wàllu forage yi quand même. waaw dégg nañ ko ce matin. ñu ne dégg nañu tey ci suba. Euh, hmm, directeur hydraulique moo wax ne président Macky Sall jël na décision mu ne balaa 2019. bëgg nañu def plus de deux cent et quelques forages deux cent quatre vingt balaa deux mille dix neuf ko tasaare loolu récompense la bu mu jox le monde rural àll bi surtout ñi nga xamante ne amuñu forage. ngeen di ko rafetlu ñu koy rafetlu nag bëgg aussi am ci suñu paar bu baax a baax a baax a baax dinañ ci taxaw pour am ko. wax am centre de waaw loolu aussi c'est dafa jaadu tey booy xool docteur wax na ko léegi booy xool ñeenti communes yi presque am nañu plus de trente mille habitants. fanweeri junni ay nit am na ndax dëkk boo dem di nga fa recensé plus de huit mille wala sept wala neuf mille xam nga kon jege nañ fanweeri junni ci population bi dafa jaadu tey ñu am centre de santé. polariser ñenn dëkk yi quoi. waaw ñu ngi rafetlu nag ambulance mu fi joxe joxe na fi ay ambulance ñu ngi koy rafetlu bu baax di ko encouragé pour mu def leneen. waaye nag ambulance yi. ambulance yi ambulance yooyu ambulance yooyu. dañu bëgg ñuy dem dugg ci centre de santé pas ci ay poste de santé. Mhm. waaw voilà léegi ci mbiru mais PUDC bi quand même euh, am nga lu ngeen ci jariñu ko. waaw le PUDC dinaa ci wax tuuti. parce que PUDC le département de Mbacké dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko ci yoon première phase. waaye nag waaye nag deuxième phase bi nii programmé nañu le département de Mbacké. li ñu war mooy taxaw ci nag ba am ci aussi jot ci liñ ci a. léegi léegi ci wàllu élection yi. wàllu élection yi. am nañ satisfaction ci monde rural bi mais à Touba gis nañ ñëpp ni mu demee boo gisee ñu def recours ci ci conseil constitutionnel pour ñu ñu ñu mettre en considération recours boobu pour li ñuy sàkku ci ñoom ñu def ko muy ñu annuler euh, processus électoral bu Touba voté waat booy xool vote bi sabotage bi ci am dañu dañu dañu dañu ciblé site yi nga xamante ne ni fa la APR doole fa la ñu investir ëppee doole ñu yàq saccage bureau yooyu muy Daaru Xuddoos Daaru Marnaan Xayra Madiana ak euh, ak Tindodi. lu ngeen bëgg ñu annuler ko définitivement wala ñu reprendre ko. waaw comme niñ ko demandé niñ ko defee euh, recours bi moo di nañ annuler processus commune de Touba ñu voté waat ñu voté waat fépp lañ voté woon ak ña voté wu doon ñu voté waat lépp annuler processus Touba ñu voté waat. ñu voté waat côté waa Touba gépp am na mel yoo